asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV tey nag ni ma leen ko waxee woon rek kon ah, ni ñuy wax rek comme que Sénégal dafa am ah, loo xamante ni. dafay ñëw kon ni ko wax mooy feebar bi nga xam te ne moom mooy coronavirus mu nekk virus boo xam te ne instant bi dafa lëmba àdduna lëmba réew mi di ñaan yàlla rek ah feebar boobu noonu ñu waaw ñu yóbbu ko fële kon comme que ba instant bi ñuy wax ak yéen moor amu ko fi kon donc yàlla bu ma fi am dëkk yi nga xamante ni wuy si na leen di ñaan yàlla mu génn fa jàmm ak salaam kon li may wax rek fii moom wax dëgg yàlla Sénégal réew teranga la te tamit dafa am ay mag ñu baax ñoo xamante ni dañ fay ñaan kon nag donc yàlla nañu yàlla musal ci feebar boobu noonu ñu ñëw nag seet un champion mu nekk koo xamante ni. ku ñu nawloo nekk koo xamante ni suñu xarit la suñu lépp la muy Balla Diouf ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom mooy feebar ba pare ak li nga xamante ni instant bi arbitre ak waa CNG ak li nga xamante ni fa la ñëw instant bi muy jàmbaar wrestling academy bi nga xamante ni moom mooy équipe Papa Sow bi ñu gis tamit mu joindre leen loolu yëpp dañ ci waxtaan ak moom dañ koy bàyyi mu nuyoo après ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi Balla maa ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum waa Wasaare. Euh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ah di leen wax bisimilah ah ñu fas yéene waxtaan rek te xam ni wax yombul et lépp lu ñu fi wax rek euh, pour defar la lépp lu ñu fi wax rek pour bëgg làmb jëm ci kanam la pour mu gën a ñoŋ. bala bala ñoo dugg ci li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi ñëpp gis nañ ni instant bi kenn nelawootul ba yandoor instant bi ñu bari dañoo tiit. muy li nga xamante ni moom mooy feebar bi fi ñëw muy coronavirus porteur de voix nga te yow da ngay sensibiliser feebar bi nii yan matukaay nga ci jël. waaw euh, di wax ni auzu billaahi mina sheytaani rajim bismillaahi di wax ni euh, feebar bi euh, wër na àdduna feebar bu kéemaane la bu doy waar la eh, di gis ni kat adduna bi dëkk yëpp dañoo def état d'urgence Eh, ñu seetlu nag ni seen population yi respecte nañ ko bu baax a baax a baax a baax eh, ñun nag fii nga xam ne mooy suñu dëkk dama ragal ni gars yi eh, jëlaguñu conscience wala mesure dayo feebar bi di jaar rek di profité ci seen antenne di def appel képp kuy sénégalais di doomu réew mi ñu topp li nga xam ne mooy décision yi nga xam ne jël nañ ko vraiment ñu topp ko à la parce que nit ku nekk yaa mën a faj sa bopp parce que feebar la boo xam ne bu doon feebar la boo xam ne tey dafa am ci lu mu yem wala fu muy ñu muy ñu muy ciblé mais feebar la boo xam ne bàyyiwul kenn bàyyiwul màgget bàyyiwul xale bàyyiwul pauvre bàyyiwul riche bàyyiwul kenn kon pour vaincre maladie bi tey foog ñëpp toog seen kër ñu mën a situer feebar bi fan la nekk mën ko traité di ñaan yàlla sénégalais yëpp. wax dëgg yàlla wéy ci règle yi toog seen kër yi vraiment moytu mesure de euh, mesure vraiment li ci jël yëpp ñu topp ko à lettre di lancer beneen appel ñi nga xam ne mooy monde làmb di xam ni sénégalais lañu te Sénégal lañu nekk muy mbër di promoteur di amateur ba ci CNG bàyyiwuñu kenn. ñu jéem a kat mobiliser wu fexe jàppale sunu état jàppale sunu askan parce que fu làmba xewle askan bi yëpp dinañ ñëw taxaw jàppale seeni mbër wala ñu jàppale làmb kon tey nag na mondu làmb laay bu lancé appel mbër yi génn ñu dajaloo ànd ak amateurs yi at ñi nga xam ne tey ñooy kilifa yi ñu fexe def ay collect vraiment nu mu mënuti toll ñu jàppale ko sunu état jàppale ko sunu réew donc loolu laa amoon lu may wax ci feebar bi di ñaan yàlla nag mu jëlee ko fi ci ni mu gën a gaawee te xam ne yàlla mooy mooy mooy wane boppam ah, ah, tey moom la ñu mën a ñaan vraiment kilifa yi ñaan mag ñi ñaan jigéen ñi ñaan parce que jullit ñaan rek la am ñu ñaan yàlla liy jóge fii te bu mu fi lor wax dëgg yàlla lor yu metti yooyu ba mel ni ci yeneen dëkk yi ñuy dégg. message bi am na solo parce que ñëpp xam nañ ne ci communication la nekk mu nekk koo xam te ni porteur de voix la kon li mu wax rek am na solo mais dañuy ñëw ci li nga xam te ni moom mooy waxtaan bi Balla ñu gis la instant bi yaa ngi euh, jàmbaaru wrestling academy bi nga xam te moom mooy écurie bu bees bi ñu gaay yu bari sax dinañ ko tooñee ne mooy ñi nga xam te ni <laughs> ñoom la waa Fass dàq ñoom instant bi ñoo vengé wu pour former seen écurie jàmbaaru wrestling academy nan nga fa duggee ak affaire bi nu mu demee. waaw di rafetlu rek sa question bi ah, di wax ni bu dee loolu lañ ko waxee de kon defe naa ni écurie ki Sénégal yëpp ñu faas dàq ñoo fa nekk parce que boo xoolee wàññil ma écurie bu écurie yu yu nekk yu nekk fii ci réew mi te amul ñu jóge faas ñu fa nekk parce que écurie yu bëri defe naa fii ci réew mi noonu la formé woo mais bu fekkee ni nag ni da ngaa nekk fenn nga dem ba nekkatoo fa. te mënatoo nekk feneen wala defoo leneen ban sens laam am nekk ku jóge ci kër ku nekk ci kër nga jëm du dëgg il e, ko nit ñun ñuy rafet njort xam ne ay xale lañu jàmbaar Wrestling Academy ay xale ay jeunes yu doomu réew mi fonk seen réew toog ci réew mi di daan seen doole tey ñoo ko créé benn ci ki ci njëkk mooy Papa Sow nekk jeune bu yaru bu Sénégal ñëpp nawloo ndax yaram ak joxe cëram. ak euh, sérieux am tey moo am jafe-jafe écurie Fass gis ni kat carrière jeexagul ah tombeek mu am combat ah ñi koy jàppale at encadrement am ñëpp ñu xool ni kat jot na kat ñu demal seen bopp parce que njàng njàngaan boo mokkalee bersa dara donc ci lancer boobu la demee at ñi mu war a àndal ñu àndal ba taxawal jàmbaar wrestling academy mu doon affaire bu noble parce que tey ñuy taxawal écurie ñëpp dañ ko taxawal pour ñoom seen bopp tey ñu ci bari ñuy taxawal écurie parce que seen seen écurie lay doon mais jàmbaar wrestling academy academy ah philosophie bi mu am defe naa ni amul ci benn écurie wala école de lutte ci Sénégal bu ko am parce que ñun suñu philosophie yemul ci làmb suñu philosophie mooy lépp li nga xam ne mooy sport de combat tey ñu fexe di ci jàng di ci avancé tey lépp li nga xam ne tey mooy bëre simple mooy sunu tradition ñu ut ci ay entraîneurs yu mag. tey jox leen loolu ñuy former xale yi ci lutte traditionnelle ut ay entraîneur gréco-romaine ut ay entraîneur olympique ñi nga xam ne tey ku ci nekk sa xam-xam lu la mu màcce ñu jox la loolu jox la responsabilité yooyu donc loolu dafa nekk lu noble tey Papa Sow dëgg la mu ngi ci carrière mais defe na bu ma nee juróomi bu ma bu ma nee ay juróom juróom benn at moo koy def ci carrière kon amatul lu muy prouver ci làmb tey li mu taxawal lu noble la pour former les jeunes et ñu fexe am ay champion ci discipline yëpp am champion d'Afrique ah am champion lutte simple am champion bëre dóor am champion olympique yooyu yëpp ay rêve la ay perspective la euh, ñu ngi xool mécanisme yi ñuy teg pour nekk ci voie boobu donc loolu dafay dimbali làmb dafay sukkali euh, askanu làmb te day day jàppale jeunes yi donc loolu lu noble la bañ ma copte wax ma ko mu nekk euh, projet bu ma intéressé Papa Sow nekk suma rakk ñu seq lu bëri seq àdduna seq sport seq làmb ba pare suma carrière démarré seen kër ndax maag magam la woon usa tey mu rafetoon ba tey nii ah bu ñu demee ba soxla ma ma rafetlu seen projet damay lu ma mën mooy ànd ci jàpp ci lu ma mën lu ma xam ak lu ma xamul sama xam-xam néew na mais lu ma mën ak lu ma mënul ma jàpp ci tey waa waakeerlu suñu borom ñaan yàlla écrit bi màgg ndax bu màggee dina jëriñ Sénégal waxuma sax euh, parcelle mais day jëriñ Sénégal donc loolu moo ma fa yóbbu donc di ñaan yàlla rek mu doon écurie boo xam ne wax dëgg yàlla dinañ ko dégg fi ñuy dégg écurie yëpp formé ay champion ñaan yàlla Papa Sow combat bi mu nekk yàlla may ko ci ndam donc euh, loolu mooy l'essentiel bi daal. Balla ñu gis ni écurie Yoff ñu ngi doon dégg ni ñoom soxla nañ la te Papa Sow benn écurie nga dem fa sa relation ak ñoom du ci yàq dara ak ñoom bañ déggee loolu est-ce que waxtaan nga ak ñoom wala ñoom mosuñu laa jël pour nga nekk seen entraîneur wala nga bokk ci yi. waaw euh, damay rafetluwaat question bi bu baax parce que yoof boo ma ci laajee damay kontaan yoof fii laa bokk yoof dafa nekk euh, sama xol bokk ci man ba nga xam ne tey ba ma amee problème écurie Fass ba génn fa dem écurie Yoff dañ ma yaatal ah, tatagal ma wax dëgg yàlla ma ma ma ma koy rafetlu trop mais écurie Yoff dewu ma fa woon comme entraîneur écurie Yoff dama fa demoon comme mbër mbër ba ma demee mbër laa fa demee ba ma demee tam ba sama bàyyi bëre jot ba ma bàyyi bëre teewul ñi ma ci seqa relation ñi nga xam ne ñi ngi ciy gisante di ci wax di ci partager ñi ngi koy def moo sos écurie bi di entraîneur principal u bi directeur technique bi tey waxtaan nañ ci lu sore sori wax dëgg yàlla moom ba mu déggee loolu sax avant ma koy woo moom moo ma njëkk a woo vraiment rafetlu ko wax dëgg yàlla ñi ma ci jot a waxal ci mbëru écurie bi yëpp ñu rafetlu ko Eh, ñu xam ni samay frère lañu ñu xam ni tamit euh, yoof at parcelle benn la yoof laa dëkk fii laay yeewoo samay rakk laay entraîné ñoom lépp luñ soxla ci man dañ koy jot parce que écrit yoof moom mun naa wax ni ah, aw ma fa benn xaar ma yàlla at kii que ce soit te samay rakk ñoo fa nekk su may xarit ñoo fa nekk lii nag dafa jot ba may nekk mbër ma nekk fa ba ma bàyyee bëri tamit dematuma woon entraînement mais lépp lu écrit bi xewle wala lépp lu ñuy def kuy préparer combat dinaa ci dugg donc te loolu du dañ mukk te du mës a changé donc nag fee nag poste de responsabilité la liggéey la loo xam ne tey euh, projet d'avenir la donc ñu nangul ma ko ma ngi ciy gërëm Baye ngeen bu baax di ci gërëm waa Écurie Yoff bu baax di wax ni sama digganteeg waa Écurie Yoff dara du ci changé parce que man maa bëggal sama bopp yoof bëgg waa Écurie yoof bëgg waa yoof donc euh, dara du ci changé. beneen bi mooy nga nekk entraîneur Papa Sow combat boo xamante ni ñëpp nga ko doon xaar. li nga xamante ne moom mooy feebar bi tax lu bari li nga xamante ne moom moo doon dox ci activité amatul combat Papa ak euh, sita entrain euh, entraînement bi Papa Sow entraîné parce que dañu doon dégg sax ay polémique que ni Papa sax dafa sauvé wu ndax état bi mu am mook Siteu bu ko bëree woon sax mooy loolu est-ce que yéen a ngi xalaat tamit ci combat bi incha allah soit fin saison ñu tëgg ko ak lan ngeen di préparé. waaw di wax ni rek euh, papa professionnel la sportif la di wax ni décision bi ba mu ba mu ñëwee ñun ñëpp ko rafetlu parce que tamit loo xam ne épidémie la loo xam ne waxuma sax sa réew mais àdduna bi yëpp la jaaxal àdduna bi yëpp la sonal tey bu ci décision yu mel ni amee dañ koy rafetlu mais teewul euh, ñu continuer sunu lancé bi ñu nekkoon papa avant ñuy jël décision yi mënoon naa wax ni pare woon na euh, quatre 80 pour cent pour bëre le cinq avril. donc euh, amuñu ci woon njàqare donc nag li ci li ci li ci décision bi dugg rek moo ñu xaw a jaaxal mais lu ñu accepté lu ñu nangu la et puis di ñaan yàlla mu jóge fi ci nu mu gën a gaawee ñun ñu ngi continuer suñuy entraînement papa mi ngi continuer di entraîner tranquillement donc di xaar euh, yeneen mesures yu ñuy jël ak yeneen décisions yi ñuy jël mais daal combat boo xam ne on le prend au sérieux combat la boo xam ne papa fonk na ko trop te ñun tamit fonk nañ ko trop donc nag ñu ngi ciy entraîné di teg ay mécanismes yu ñu jéem a yóbbu ci victoire te gëm nañ ko ah, xam nañ ko li ci des nag mooy waakeerlu ci yàlla ginnaaw bi ñu liggéeyee ba la ñu war a liggéey yëpp ba pare waakeerlu suñu yàlla yàlla mu may sunu rakk ji papa saw ndam parce que dafa am lu mu tàmbali te li mu tàmbali ndam day tax tamit mu gën cee neex. ñu bari dañ naan papa saw mag la yaa ngi combat boobu noonu est-ce que mag li ma bëgg ñuy bàyyi wax ci làmb mooy mag at xale sport amul mag at xale tant yaa ngi mën di entraîner mën di compétir tu es dedans papa xale la du mag nekk fi mag yooyu tax ñu naan mag la mag mag mag mag du dëgg xanaa man mii sax mag papa saw fuuf man rek sama carrière jeexagul dese naa cinq ci làmb du dëgg maa teel a bàyyi du dëgg. tey ay ñoom ay xale lañu ñoom ñoo bokk génération Papa mënul magee cité dix ans mënul nekk déedéet mënul magee cité dix ans donc te booy bu sérieux la Papa Sow ku sérieux la ci li muy def donc nañ jël euh, hypothèse ay mag laak xale ñu teg ko nale ñu xam ne ñaari sportif ñaari champion ñooy bëre ñu xool li nga xam ne mooy qualité yi ak faible mbër yi faiblesse su mbër ñu koy wax que bañ di stigmatiser nit ñi naan ay mag laak ay nii ay naa ku nekk mag da ngay dem toog mag ñee ngi ci biir kër yi seen tànk yi di ruux. beneen ñu ne seen écurie bi gis nañu jàmbaar Wrestling Academy amul mbër ndax nee ñu bari. da ngeen di jël mbër yi nga xam ne instant bi ñoom ñooy nekk ci biir écurie di ko coppati pour dugal ko seen écurie ndax dañuy gis Papa Sow bu amee ay jàmmaarloo ñi muy àndal ñëpp bokkuñu moom écurie lu waral loolu noonu booy yi dañ leen wuy seegul ak booy yi ngeen di jël ndax ñu bari nañ sax yeneen commencé tas parcelle parce que yeneen coppati booy yi di indi jàmbaar wrestling academy ci nan lay liggéeyee. waaw loolu dama ci sawar a développé parce que man dama nekk koo xam ne. ay ay waxu nit wala ay rumeur man lu may wax dama ko gëm day fekk ma xam ko du wax ci nit lu ma xamul wala lu ma gëmul lii nga ma ton laaj nii nag duma la ci tontu léegi mais xam nga lan laa lay wax écurie la boo xam ne ba mu ba mu taxawee léegi matagul trois mois donc di ci def ay bilan wala ay seetlu du sama position mais li mu li wërta wóor ma laa lay wax dama ne fi ak ñaari at question bii nga ma laaj nga ñëwaat nga laaj ma ko ma door la tontu ah, dañuy door a door dañuy door a door di nekk ci ay vraiment organisation at ay defar mënaguñ fi nekk di jokkalante ay wax ay mbëru lii ay mbëru laa ay mbëru laa ñun ñu ngi liggéey te fii ak ñaari at dinaa la tontu ci lii wala yow nga ñëwaat tontu laajaat ma ci ma tontu la mm. te ñaari at mm. laa la wax nga ñëwaat laaj ma ko. parce que ñu ngi door a tàmbali. dañu door dañoo tàmbali liggéeyaguñu sax dañoo tàmbali. Mm-hmm. liggéey bee ngi ñëw du dëgg dañoo tàmbali te liggéey bee ngi ñëw donc di ci wax ne ay am na ñu mbërëg amuñu mbërëg mm-hmm. ay nii ak naa duma ci fekk. Ah, parce que dama xam potentiel bu ñu am dama xam li ñuy organiser. mais tamit Balla mhm. la preuve en est gis nañ franc ba jugee jógee États-Unis ba léegi nañ waxante dëgg yéen a koy préparé mhm. amoon na ay problème yoo xam te ni sax ba kii euh, mam lees damay tudd turam mhm. euh, gars yi sax ñu bari dañ doon wax du toog ba ndax papa kii kii di euh, franc yéen yéen a ko entraîné moo tax tamit loolu noonu yéen a gën que tamit booy ñu bari ñu ngi leen di ñëw di wuy si te bokk ñu ngi yow tamit waaw loolu sant yàlla la quoi comme xam yaa ko waxal sa bopp nga ne ñu bëree ngi daw di leen wuy si du dëgg Papa Sow at Franc at ñoom góor a soog at Modou ay xarit lañu ay frère lañu ñooy ànd di fréquenter. mais déglu ma rek xoolal boo ma posé question. ma lay tontu da nga may bàyyi ma développé. werante wuñu parce que dañuy wax. pour pour pour waa wa pour waa wasaare. Mm-hmm. am luñ ci jël am lu luñ ci jàng wala am luñ ñu ci yeddee. du dëgg boo ma posé question rek bàyyi ma développé. tey man dama ñëw fekk ñoo xam ne ñooy ànd. bokk ndey bokk baay bokk benn esprit bokk lu ñu gëm mooy seen localité. donc pour ñu xeex pour parcelle nag mooy li Sénégal def tey am na loo xam ne boo ko bëggee song daan ko da ngeen di mbooloo tey bu pikin booloo Géejawaay booloo jàmm gën booloo ñëpp booloo ba pare ñu taxaw ne parcelle du booloo amul sens ay jeunes lañu bokk ko localité gis nañ ni ñi ngi war nañu mën a ànd pour développer seen localité mais loolu on n'en disconvient pas sama yoon nekku ci du ma ci wax. li ma entraîné Franc nag ñëw naa ci jàmbaar wrestling écrit euh, académie fekk Franc di ànd ak Papa ñu ànd ànd bu rafet peut-être seen écurie peut-être euh, sparring partenaire ak préparation bi Franc mën a am fii mënu ko am foofu loolu rek mooy mooy inconvénient bi mais dañu gis ni ñoom ñëpp dañu gis ni loolu yëpp benn la Franc entraîné fii entraîné fee entraîné fa ci des lépp benn la donc ñun amul différence suñu biir xëy na tamit ñi ñi nekk à extérieur ñooy gis différence peut-être voilà mais ñun ñi nga xam ne ñoo nekk amul différence pour ñun Modou sax bu amee combat war nañ ko mën a préparer bu fekkee ne mu soxla ko keneen tamit ku dëkk parcelle wala nga nekk mbër écrit boo mënti nekk nekk biir parcelle boo bëggee préparation nga boo ñu solicité Jàmbaar Wrestling Academy la parcelle la donc ñu entraîner la rek. Mhm. pour yéen ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV Balla Diouf euh, leeral na parce que tamit yooyu combat am ak Franc ba mu bëree pare avant rumeur bépp dégg nañ ko ñu bari ne bala Diouf moo koy entraîné moo koy entraîné mais nii nag ah li mu wax tamit parce que ñun tamit dañoo bëgg lu leer rek bala moo tax tamit mais li nga wax ni wax dëgg yàlla leer na ndax jàmbaar wrestling academy nekkul fi Papa Sow kese képp koo xam te ni mbëru parcel nga ku la ku ko ci woo wala ku leen ci sollicité rek ñu ñëw ànd ak yow ah. ak moom képp ku staff technique bi. ne kii kat yoo gis nañ ni mën nañ ko préparer man awma lu may décider man je la comme un entraîneur un sportif déjà et puis un entraîneur et mbër yi ma bokk ak ñoom philosophie bokk ak ñoom lu ñu gëm donc ku ci am combat nga gis ni kat écurie bi ma nekk peut-être préparation bi ma mën a am fale mënuma ko am fii bu ci dirigeant yi waxtaanee ba am ci ay école ñu déggoo loolu dafa naa ne warul metti daal noonu la demee beneen bi mooy comme que léegi yaa ngi parcelle te ñëpp xam nañ ni mbër yëpp waxuma sax parcelle mais mbër yëpp am nga am ñoom relation instant bi sa relation ak Modou gars ne day gën di tax yéen ñaan seen relation léegi nu mu demee. bon relation bu am respect la respect entre petit frère ak jox na ma cër jox naa ko cër donc chaque jour ñu ngi daje entraînement chaque jour ñu ngi gisante. donc mu doon loo xam ne tamit lu ma rafetlu la parce que mu nekk mbër bu professionnel mbër bu xam cëru nit di ko jox te liggéey tamit du ko caaxaane donc loolu relation yooyu la ñu am relation sportive la ñu am relation jàmm ak respect la ñu am. Mhm. Balla loolu nag ndax sañ ñoo waxtaan ak yow te duñu waxtaan instant bi ci li nga xamante ni moom mooy jàmbar wrestling academy ndax fa nga nekk ak li nga xamante ni moom mooy mburu parcelles yi ndax ñoom ñëpp léegi kon ni ñu def rek ñoom ñëpp dañu laa wut si te loolu lu rafet la loolu mooy wan ni carrément nekk nga ci mais kenn ku nekk jox na la cër ak tamit estimé la la. beneen wax ci foofu rek mooy. làmb ñun ñoo ko bokk te ñun ñëpp ay sportif lañu peut-être euh, contrat mun nañu boole euh, événement mun nañu boole euh, suñu cosaan muy làmb mun nañu boole mais ay nit la ñu dañuy xalaat bu loolu weesoo weesu na dañu war a xool li nga xam ne mooy développer suñu sport li nga xam ne tey mooy jàppale suñu rakk yu nekk suñu ginnaaw li nga xam ne tey mooy règlement yi ñu tënk donc loolu yëpp tey moo ñu boole ñun ñëpp ba tax na tey mbër yi dañu war di communiquer dañu war di wax parce que dañ bokk ci làmb dañ bokk ci li nga xam ne tamit ci développement Sénégal la bokk muy làmb donc dañu war di wax c'est que c'est juste rek dafa am ñu nekk ci diggante yi di xaajale di xaajale mais ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñoo bokk lu ñu gëm te noonu laa ci bëree xarit làmb ji ñëpp képp kuy mbër ma tolloo bokk yow génération wala nga mag ma ci génération wala ñu ñi nga xam ne tey mooy suñu papa yi ñëpp laa sekkal jàmm ñëpp laa sekkal xaar ma yàlla ñëpp laa sekkal waxtaan je pense que loolu mooy ouverture mbër yi nañ bàyyi ñu ñu leen di tëj ñuy tëju ñu nekkee ci bànneex wala ci pante bu baax di tëju di daw nit ñi buñ nekkee ci ay problème ñëpp daw leen ñu door a comprendre ni ñëw ci nit ñi mooy solution or ko loolu mbër yi dañ ci war a teel a yeewu xam ni nit nit mooy garabam mbër mbër mooy mbokkam ah bu ñu dawante bu ñu bañante nañuy jàppalante xool li nga xam ne tey mooy suñu sport national naka lañ ko mën a tegee ci yoon ba mu gën a ñoŋ nga xam ne tey làmb dina dox ay jéego yu mu war a dox te lépp en tout temps mbëri jàpp ci ñu intégré leen ci mbëri jàpp ci amateur promoteur ñëpp jàpp ci parce que mënu làmb benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ni may wax yow ni Lac de Guiers numéro 2 sama xarit la sama doomu nday la dañuy déggante tout le temps mu nekk nit ku baax ah ku ci mel ni Bathie Seras dañuy déggante tout le temps ñoom Forza gars yi ñoom ñëpp awma xaaj ak seen mbëru Sénégal yi parce que respect laa leen jox ñu delloo ma ko et tamit ma def carrière ñu nangul ma sama carrière bu rafet donc loolu rek sant yàlla la et puis te loolu dafa war a continuer. Mhm. nan gisee làmb fi mu toll nii parce que làmb da daan fekk làmb yu mag am mais léegi pour làmb bu mag sax am fin saison la c'est tout ton problème. mais yow nan nga gisee instant bi làmb parce que ñu bari dañu làmb yàqu na ñi yàqul ñii ne VIP yi ñoom ñoo yàq làmb ci parce que ñoo ñoo wàcceetul li nga xam te mooy seen cachet nan nga gisee làmb instant bi waaw làmb bu ni ma ko gisee mun naa ci wax fii ba suba parce que gis-gis yi ma am ci làmb vraiment dafa bëri bëri na bëri boo xam ne wax dëgg yàlla jéggi na dayo parce que li nga xam ne tey mooy suñu cosaan ñu koy bàkkoo muy làmb bëri dóor amul fenn ci àdduna bi Sénégal kese kese kese kese la te damay wax ni Sénégal rek làmb kese moo am ñetti ministères yu ko war a jàppale te ñetti ministères yëpp jàppale ñu ko làmb ministère de sports mooy bopp bi ci làmb la bokk parce que làmb sport la ministère de la culture dafa war di jàppale làmb parce que làmb mooy suñu cosaan làmb moom la ñu am te mooy suñu culture du dëgg te bu ñuy wax culture bu chaque dimanche chaque samedi ak dimanche nga gis culture Sénégal cosaan Sénégal foo koy gisee làmb kon ministère de la culture lu tax muy ne ay ay musiciens di jàppale ay artistes te jàppalewul làmb ministère du tourisme te làmb la bokk parce que touriste bu ñëw Sénégal làmb ngay njëkk seetaan dangay laajte sax man tout le temps damay recevoir ay ay ganu tubaab. tout temps li ñu may njëkk laaj yan date moo am combat ñu mën a programmer at seen i seen voyage mën a fekkee datu làmb yooyu mën a fekkee assister sax une fois làmb loolu tourisme mus nga dem làmb doo fekk tourisme tubaab boo duggoon ci àll bi nag ngay gën a yéemu mbapat yi am ci àll bi ci côté Sine Saalum ak dans les îles de Saalum boo ay tubaab rek nga fay fekk dangay ñëw sax fekk ay espagnol yuy organiser ay làmb dem naa nangaan fekk ay espagnol organiser fa làmb du dëgg ñetti ministères yooyu dañu war di liggéey di jàppale làmb ministre des sports mi ngi jàppale làmb parce que mi ngi xool saa yu problème amee mu jéem ci mais làmb nekkatul loo xam ne lu ñuy jéem la làmb ay décision la soxla décision yu fort làmb dafa soxla ay jeunes yu am xam-xam yu dynamique ñoo xam ne vraiment ay gestionnaire lañ ay développeur lañ ñu ñëw pour développer làmb parce que développer làmb jafewul développer làmb jafewul man gisuma complication bi ci gars yi gis yëpp làmb pour ñu développer ko da indi ay gestionnaire ay jeunes yu dynamique yu bëgg seen cosaan xool naka la ñuy développer làmb xool naka la ñuy utee ay partenaires au niveau de sociétés yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal xool tamit yan décision la ci président de la République ak état Sénégal mën a jël pour làmb dox parce que loo xam ne plus de huit mille wala dix mille jeunes ñu ngi ci di di di yëngu parce que bu man bu may dégg ñu ne vraiment euh, on a des projets pour les jeunes mais làmb ji moo ëpp jeune ci senegal làmb ji moo ëpp jeune ci Sénégal boo xoolee làmb njaboot yi muy dundal ci senegal ah ñiy topp làmb ah ku bëgg siiw ñëw ci làmb ku bëgg am tour ñëw ci làmb ku bëgg sa produit daal dox nga ñëw ci làmb te loolu mënuñu ko jàppal mu développé ko làmb yam ci promoteur at mbër mi at CNG nekkul yëfu senegal foofu lañu ñu war a di waxee ñuy bàyyi di joxoñ naan Alioune Sarr wala CNG wala arbitre yi wala Jean wala Paul objectivement ñu xool lan la làmb sooxe ñu xool naka la ñuy xoolee ay mécanismes yu développé làmb parce que làmb kat jàmm la ci réew mi de làmb mooy jàmmu Sénégal du dëgg beneen point bi mooy jamono ji ñu toll làmb sooxe na parce que dañ ko bàyyi ak promoteur parce que làmb loo wax ñu ne promoteur. te bu eh, bu ñu jógee ñu ne promoteur boo waxee CNG wala nga wax ministre des mu ne la promoteur yi ay privé lañ kon bokkuñu ci làmb donc léegi làmb tey benn exemple bu promoteur yi toogee amuñu xaalis tëgguñu làmb kan mooy tëgg làmb làmb du am parce que promoteur yi ay privé lañ intégré wuñu leen ci dara ñooy dem lijjanti ci seen xaalis ñëw kenn xamul fu ñu jëlee xaalis kenn xamul nii kenn bu léegi bu làmb doxee ñu ne blanchiment d'argent léegi bu promoteur amee problème ñu ne dafa blanchir d'argent donc léegi di stigmatiser làmb ji wala di salter làmb ji du yoon ci benn sénégalais sénégalais làmb defar làmb képp kuy sénégalais muy 14 wala 15 de sénégalais defar làmb làmb ñoŋ yoon la ci yow wax ci lu rafet ci làmb yoon la ci yow muy communicateur traditionnel yi ñu arrêté tamit naan violence bi ci làmb làmb amul violence làmb amul benn violence ay noob la kilifa rek ñoo koy seetaan du dëgg. tey sport at ay yu gën a ëpp violence làmb mi ngi fi te doo dégg ñoom seen i chroniqueur nga topp ci topp ci di wax parce que yéen a ngi jox atu ñuy stigmatiser làmb donc ñoom aussi nañ euh, nañ objectif bien vrai que ñoom tamit ci làmb lañ bokk te ñu ngi defar làmb dañu war di objectif di xool lu objectif at yenn euh, communication yi ci ci ci làmb